barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. yaasin mooy xool alquran dégg nañ ko mooy qaxaaru qaxaarut. Euh, ñetti téeméer ak lu teg la juróom-benn yaasin tamit ñetti téeméeri miim la am ak juróom-benn waaye boo yaasin yaa ba fukk la siin ba ñetti téeméer la moo taxoon Cheikh Abdou Qadir Jilani xaddasal bu doon bu doon yebal ay doomam dafa ñuy sëy mu ne na leen firil yaasin yaa ba ah yërmande siin ba sutura sëy bu ci lii jógee jeex na yërmande ak sutura nga yërëm ko ne bàyyi na kër ndeyam ak kër baayam bu ëmbee yéen bokkoon bànneex bi waaye tey métit bi moom kese la buy matu sans gagne sans perte mun na dee mu wasin ñu tere ko sant ba jox la sant ba doom ba màgg nga yónni doom ba yaay ba yónni ko mu bàyyi boo yaayam def sa bos kon war ngaa yërëm jigéen boobu nga jëfandikoo ko ba mu lappax nga ne ko ñukk dem seetu ñu tooy maa ngi jéggalu ci waxin bi jotaay bi moo laajte loolu dafa am ay pël ay séeréer ay hausa ay dogon du ñàkk teggin waaye jàngale bu métti laay jàngale fi ma tool waaw nit du tooy maanaam bànqaas nit ñi na bànqaas bu tooy mooy xale bu tuuti waaw nga dem jëli ko daal di jëñax këlëfale sutura mooy siin ba yaa siin yaa ba mooy yërmande siin ba mooy sutura suturaal ko ci bu jàmm yendu kenn ku nekk la nga xam sa morom da ko waxul dégg nañu wolof bi ci boo xam ne jàmm yendu na fa kenn ku nekk li nga xam sa morom danga ko waxul li ma xam ci yow bu ma ko waxee jàmm du fa nekk li nga xam ci man boo ko waxee jàmm du nekk li nga xam ci nit ñi ak li yàlla xam ci yow ñu ngi lay raamal di foon sa loxo di la jox àddiya bu yàlla feeñaloon misqaala zarat li ngay doon ñëpp dañ lay daw kon yàlla mi la suturaal suturaalal jaami diw njaalokat nga kan nga yëkkati ci kawam ah diw njaalokat nga kat la ci kaw ban jigéen nga ko yëkkati foog naa defe naa jort naa lislaam du àtte ci loolu nañu tuub dellu ci yàlla bu la suñu dund dina métti kon yaasin ñaari béréb lañ koy jàng ku dee ku dem ba wone mandre kay dee ba nga xam ne ku dootul jógati sonn na buñ ko jàll jàngale yaasin dana teel a yeewee ko koo xam ne danga bëgg bàmmeela mu wéttaleeku si yonent yi moo ko joxoon Seydina Ousmane ne ko jàngal ko sa soxna aaya bu nekk dina doon leer di ko wéttil ba yowmal qiyaamati dégg nañu kàddu gi aywa ba tey ñu ñëw na ci li lëmbee réew mi yëngu-yëngu yi xew jamono yi julli di nangam julli di nangam julli di nangam ñi koy wax dañu xamul l'Islam. amna ben benn bu reuy mi ngi doon liguey Maison Blanche ci Amérique Maison Blanche moy palais bi américain di deuk ah bu dé Mali la fi président bi deuk mom lañu ñu kuluba bu dé Guinée la fi président bi deuk ñu ko tuddee Sékou ya bu dé Liban la fi président bi deuk ñu ko tuddee Baabda bu dé ci Russie la président fi mu dëkk ca Moscou ñu ngi ko tuddé Kremlin bu dee Amérique la fi président bi dëkk mo luñu dé Maison Blanche dafa am ko fa doon liggéey mom ak Ronald Reagan xam ngeen ko moy ki bombardé won Libye booba ma ngi fofu mom mo bombardé Tripoli bombardé Benghazi dafa am ko bokkoon ci entourage am ni mu bañé l'islam kenn mun la wax ni mu bañé l'islam mom mënoon a lekk jullit mu koy xool ba mu demee nag ba Ronald Reagan am ñaari mandat nguuram daal di jeex mu ne moom li muy weddi est-ce que du dellu ci làkk bi ko yàlla wàcce mu jàng ko mu dem jàng arab ba xam alquran dem jàng hébreu làkk bi Israël di làkk ba mun a jàng seen biibul ba te mooy Talmud mu dem jàng làkk armen ci lañu bind évangile évangile ci armen lañ ko bindoon armen benn réew la mi ngi nekk ci weti Azerbaïdjan ci ginnaaw turc mu jàng téere <coughs> yi yëpp mu dajala làbbe yi seigneur yi cardinaux yi mu dajala kilifay làbbe yëpp ñiy takk lu ñuul li seen digg ak ñiy takk lu xonq li ak ñiy aj bu bu jaune bi teewal leen ñoom ñëpp mu jël benn a benn aaya moom tubaab bi de américain bi mu jël benn aaya ci suratu Ali Imran mooy ñaareelu saar bi gën a rëy mu daal di ubbi téere bi ne leen inna allaha istafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahim wa ala imrana subhaanallah dégg nañ kàddu gi yàlla de démb moo tànnoon aadama ba duggul ci benn ñaawteef def ko muy nit moo gën a rafet mboolem njaay àll may ko mbubb may ko tubéy may ko mbaxana may ko dàll may ko ay kër may ko gaal may ko nanga may ko nanga inna allah aadama yàlla moo yëkkati aadama mu tiim lépp lu dul aadama yemu ci loolu wa nuuxan mu tànn yonte yàlla nuux mu gën a gudd fan ci yonent yi ngir gën a séparer ak mbaax mu njëkk a doon lawbe yatt gaal nit ki di tëmb ci kaw géej yemu ca wa ala mu tànn ñooñ ibrahim ibrahima jur ismail jur isxaaqa isxaaqa jur yaqub yaqub jur yuusuf jur yahuza te yahuza mooy maamu yahudi mu continué di jàng li aaya fanweer ak ñett la ci suratu ali imran muy jàng bi yegg ci isa yaayu isa musta njaalo te moom moo jur ku sell kookale ki ko yar mooy Zakaria baayu Yaxya tudd baayu Mariam ñëw ba ci Isa inna masala Isa indallahi ka masala Adama xalaqoo min turaabin summa qaala kun fa yakun di jàng làbbe yi di jooy xamaguñ ne lii alquran la moom tubaab bi de mooy ki nekkoon ak Ronald Reagan président Amérique muy jàng rek ba ñëw maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa maa kaana min al mushrikin ibrahim du yahud ndax yahud ci gannaawam la feeñ ibrahim du nasaraan ngir nasaraan ci gannaawam la feeñ ibrahim lan la woon xanifan dafa mat a fegg woon lépp lu dul bu yàlla daf ko bàyyi woon musliman ku jébbaloon boppam yàlla la wa maa kaana mina mushrikin ñoom ñëpp ñu daay tëdd ci suuf mu ne leen li bantéere la yahudi ne lii de biibul la bible anglais ñoo ko tuddee bible ne ko lii biibul la mu ne yéen xamu leen seen téere ñu ne ko lii biibul la wax yu sell yi ci yaay Mariama wax yu sell yi ci Isa ci Zakariya ci Yahya ci Ibrahim ci Nuhun ci Adama ci Ala Imrana ne wax bi du waxu benn téere bu du suñu téere mooy biibul mu ne ko yéen nasaraani catholique lan ngeen wax ñu ne lii évangile la mu ne du évangile bu catholique yi du biibul bu yahudi mu ne lii mooy alquran mu ubbi téere mu ne kon xam ngeen ne yéen da ngeen yées seen téere sax mokkal leen ko te téere bi xale yi gën a tuuti toll ci fukki at yëpp mi ngi seen ak fukki saar ak ñeenti lépp mi ngi ci mu ne kon bu ngeen nangu ak bu ngeen nanguwul ëllëg diina gi mooy kon comprendre ngeen kàddu gi tekki ba léegi mi ngi dund man ba ma koy géej mi ngi dund ba mi ngi xam ngeen ko ba mu bombardé Libye ci année quatre-vingt yi la boobu man maa ngi foofu boobu Ibrahima faal bi nekk ministre affaires étrangères ñoo ne ba foo fekk ma foofu man maa ko gunge ba kër Xadafi Aziziya ba tànkam mu fokkastalu ci benn doomu tubaab man maa man maa dindi doomu tubaab ci kanamam kon lii yëpp mu gën a leer moom Ibrahima Fall bu ko déggee at bi mu demee Tripoli seeti kër Xadafi ki àndoon nag moom ba mu bëggoon a joggi doomu tubaab bi ku ko dindi ci kanamam man la woon léegi diingatkat dafa bëri moo tax booy wax diplomatie tudd nit bokk ci waaye Ibrahima Fall fu mu toll ci ne bu déggee dina xam ne man la woon loolu xewoon na dégg nañu kàddu gi alquran bi ngeen yore du fooyekaay am na benn buur ci àddina bi ñu ko dee Napoléon Bonaparte xam ngeen ko ah xale laa yéen ñi mujj ci téere yi bu empereur la woon France ah? Napoléon Bonaparte empereur la woon ci France ban at la juddu moom moo njëkk andi machine buy mool ay téere Égypte moo njëkk a andi machine buy mool ay téere Égypte kañ la juddu ak kañ la dee aha am na ñuy sëggal seen bopp nii ci suuf <laughs> ah bii moom paa bi daane na leen d'accord ngeen ah mi ngi judd

yelloonte man bala may dee sama fan du gatt man Napoléon ma dajale borom xam xami yi xel yu rafet yi xar baxi ma jël alcorane tek sen kanam né nañu bayyi constitution adina bi yëpp bu la neexee nga soppi sa constitution réew ngir sa maslaa naafalu ñaar yoon naafalu nangami at naafa ñu ñu bayyi lepp ñu jël alcorane tek suñu kanam ñun ñëpp ñu daal ci adressé di ci attew mu ne kon texe mooy doon suñu mujju te ki tubab la. Ah, Laurence Recherche. Was? Ah? Atordone. Ja? waaw danaa mottali léegi 5 heures 20 ngeen may ma ma dem ba ay 5 heures 30 ma gën a leeral yenn yi dafa am lu ma dese leeral ngir yëngu-yëngu bi xew ci réew mi ñu naan màkk aj bi dina mos dana mos a toxu déedéet dama bëgg ngeen demee lu concret kenn du leen jaaxal ba ngeen di dem di tottant di tontant ci rajo ak télé li ma bëgg mooy kenn ku nekk bu jógee mu jógaale dara lu concret ne góor gi moom moo ko wax te ban téere la walla ban analise la danaa ko jottali euh, liñ ne ci alquran yàlla tuddul màkkata ne bàkkata la yàlla tudd te bàkkata mooy fi yahudi di jooyee ci wetu euh, Jérusalem waaw boo demee masjidul aksa ci miir ba ba yonte yàlla muhammad di yéeg ba muy julli ñaari ràkka fi mu yeewoon alburaaq façon boobu ñu tudde alburaaq yahud yi dañuy dem foofu ne mooy seen miir ba nga xam ne ca la ñuy jooy ngir yéeg ci yàlla nit yàgg naa yegg ci yàlla fekk jooyul mu ne bàkkata jooy kon du màkk bi bële la Mouhamed ñaata la 92 ah Mouhamed ñaata la 92 ñaari miim la miim bu nekk 40 40 fois 40 40 fois 2 80 xaa bi 8 la 8 boo ko yokkee ci 80 muy ñaata 88 daal bi 4 la 4 boo ko yokkee ci 88 muy ñaata 92 kon Mouhamed 92 la d'accord ngeen foofu ah bon. yàlla mi ngi wax bàkkata inna awwala baytin wude si lëllazi bi bàkkata bàkkata boo ko wàccee vingt-sept la baa bi deux la kaa bi vingt la taa marbuut bi cinq la deux vingt cinq mu jox la vingt-sept tee ngeen vingt-sept bàkkata vingt-sept la makkata miim ka tu maa bi quarante la كابي 20 la 20 40 muy 60 tout 5 la muy 65 65 boole 27 mu jox la 92 دي محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kon bàkkata mooy màkkata waaw oh, sàmba mooy bàcc di walla waaw yoro mooy mooy ngatam mbeen mooy ayda daba mooy roqiyatu walla waaw mbay mooy abubakar kon bàkkata mooy màkkata màkkata mooy bàkkata bële 27 la bële 65 la boo leen boole mu jox la 92 mooy mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yemul foofu de lii doon doom ci nit 92 la bu ñu bokkee di sëy góor andi awa 43 ah 46 góor andi 46 jigéen andi 46 ñaari 46 mooy ñaata 92 bu ñuy sëy góor andi 46 jigéen andi 46 góor daal di wàññiwaat joxe vingt trois jigéen joxe vingt trois ñaari vingt trois yi muy quarante six doom bi tam am loola la te lii mooy quatre-vingt douze mooy Seydina Muhammad kon Muhammad mooy kilifay Makka kon li ñu naan bàkkata mooy Jérusalem ne Jérusalem moo yàgg Makka yonte Yàlla Ibrahima dafa noboon Haajara ba mu ëpp rek moo tax mu yóbbu kaaba gi fa la déedéet kaaba gi mooy wattiini zaytuun mooy baytul maqdis tuuri siiniin mooy sinaay bi Cheikh doon wax keroog ne dem na fa moom ak maam Balla yal yàlla fay leen wa haazal amin mooy mbineetu munawara tiin mooy garab goobu te mooy géng fa mu njëkk sax ci àddina bi moom lañu ñu dindi mu ñu teg fa kaaba gi booba màkk tuddagul màkk waaye mi ngi tudd maakura ba ci làkk gërëg bu njëkk maakura ba mooy njombe bu rëy kéemtaan bu rëy loolu lay tekki maakura ba ba boo demee ci làkk bambara loo dégg ñu ne ba mooy lu rëy baa ji ndox mu rëy wóolu ba yaay gisoo Nelson la nan lañ ko tuddee wax leen ko Madi Ba nit ku mag ki ba ci làkk yi mooy lu rëy moo tax alxuraan tàmbalee ba siin mimara ba moo tax màkka ci cosaan làkk yi jiitu woon ba ñuy bind mi ngi tudd màkkura ba kon ku bëgg a gànnaawal màkka dangay jiital beneen dëkk ngir sa politique jamono bëgg Israël dimbalal Israël mënta yéegal ko yàlla yéegal Israël mënta daanelu ko yàlla yéegal te Israël woggu galaas la euh, jant bi koy seyal mu ngi ci yoon dëkkee di jooyloo nit ñi di rey nit ñi mënta wéy guerre yi dafay jeex